dalen leen ak baki mbokki internet yi safo di seetaan bus mtv cyant ak ñen leen si top bi ngeen di top sen bi comme niñu koy faral di waxe bul fatte abonné bu fekke gan nga ci sen bi like video yi bu fekke yag nga noy suivre eh, mbir mi nga xamne nak mo xew ba legi ci la wax nek actualité yu bare bare nak doon si joxoñ baram ak tuuma ñi bok ci Pastef ño daf jëf juni mel loolu nag dafa mel ni enquête ba ma ngi koy gën a leeral ndax bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xam ne nag daal nay génn eh, ki def jëf ju ni mel moom nekkut dugul woon ñëw nag ngir faagaagal kii di Maimouna Ndour waaye dafa ñëwoon nag ngir jël li nga xam ne daal moom la yoroon kon daal da ko doon agressé si ñu mën a déggee information yu mujj yi dinañ si dikkaat nag gën ko leeral waaye dina leen dégtal révélation yi nga xam ne nag am na si ak ay jàngat yi nga xam ne nag daan nañ ko si amal waaye tamit eh, ki nga xam ne nag eh, moo jiite quartier boobu nga xam ne fa mbir mi xewe nee na nag lu ni mel dafay faral di am nekkul guléet nag ñuy gis jëf ju ni mel di fa am quartier la boo xam ne daal dafa eh, am insécurité daal amu fa daal sécurité bu baax a baax daal mu amu fa kon yu ni mel dafay faral di am kon nak xibaar yi nga xamne dot na jotta genn te enquête bi fessul won sax ñu bëggoon a tuumaal nag ñenn ci ñi nga xamne nak ñom lañuy woy ay détenu politique di wax ka ne nak ñoo def jëf ju ni mel loolu mom dàqu na bu ñu sukkandikoo si information yi mujjé ñu dektal leen révélation yi nga xamne nak jot nañ ko ci amal ak ay jangat comme niñ koy faral di defee jangene jëf légui mu dess euh comme euh, li nga xamne mom ngeen doon wax barki dem ba légui mais nag da ngeen koo tegoon lu ju bari nag ci dënn bu tàng mais le problème mooy euh, dafa am lu ñu naan euh, détenu politique yi génn génn nañ jàpp ne ñoom ñoo am mer kenn dàqul loolu mën na am benn cinq wala dix pour cent maximum enquêteur bi ci loolu la koy teg mais du occupé temps am yëpp euh, beneen bi nekkutuñ contexte violent boo xam ne dañuy oote exemple tey nekk ci benn contexte xeex contexte étape boobu tamit nekkutuñ fa.

kenn waxul ne li diw wax nii moom la wala li diw wax nii moom la mais ki nga xam ne tamit day liggéey ci ngir mi hypothèse bi gën a plausible lay jël maanaam bi nga xam ne pour pourcentage bi fa la ëpp doole fa lay jël piste du tee nag di yërndu yeneen piste yëpp mais piste bi nga xam ne mooy ëpp doole fi mu toll nii mooy piste agression parce que da ko xaaj xëy na saaga ko laaj ko saagam euh, xëy na mu xëccoog moom saag bi euh, xëy na mu yëkk di paaka parce que boobu dañ ci jël intention ne peut-être est-ce que bëggoon na ko rey parce que tamit euh, bu fekkee tentative de meurtre la dana viser yeneen côté euh, mais en réalité bise dafa am andi élément bu am solo ci enquête mooy daf ne saagam la doon protéger kon ça veut dire que waa ji saag bi la bëggoon a jël loolu c'est extrêmement important détail bu ndaw la mais li extrêmement important parce que waa ji bu fekkoon ne tentative de meurtre la du viser saag bi mais il da koy poignarder foo xam ne c'est mortel bu fekkoon ne ko doon poignarder si bopp nga yëkkati sa loxo ñu jam la ko exemple si bopp yi may wax nag képp ko xam tuuti rek ci affaire enquête xam na li may wax maanaam bu fekkoon ne da lay viser ci point mortel comme ay biir wala ay bopp wala yi demee noonu ngay protéger sa loxo day am feneen fu muy jam ci loxo bi mais brise dafa andi lu am solo maanaam da doon protéger saaga ça veut tout dire moo tax ñu jam ko fi ñu ko jam. ah yii yépp nag ay dole la yoo xam ne ci la ñuy sukkandiku ça ne veut pas dire li ma wax mooy dëgg wala nangam mais ay hypothèse la hypothèse yi dañuy xool benn bu ne bi gën a yanu maanaam. Ah, li xew démb li ñu ko fa andi xam nañ leen mooy ñi nga xam ne amatuñ dara ci politique bi euh, la faute nag à tout le monde la mais da ngay def analyse normale rek seen normal ndaje yi ñu dajee gars yi dañ koy bëgg a synchroniser maanaam synchroniser comme ni ñu koy waxee loolu am na opposant bu mu neexul. effectivement pour man c'est vrai parce que dem ñëpp tamit nga ñëw fa manam euh, li nga xamné peut-être yow rek la intérêt rek la intéressé c'est vrai ah, mais ñeneen ñi koy andi ñi a xam ñu rek xam cest à que heureusement Sénégal le temps c'est le meilleur juge mais ñeneen fay andi euh, parce que ils ont mort politiquement c'est ça la réalité. Ah, politiquement ils sont mort ça à dire que li ñu mën rek mooy langaamu ci ay acte ñom ñoo ñu ko taxaw <laughs> di di di bañ ay amnistie ak ay kërën kërën te pourtant ñom dañ ci bénéficier wu tu vois la incohérence c'est ça ñoo ñu la rek. xam nga da nga wax lu am solo manam VDM 3 bi ak tudat benen point légaliser drogue xam nga groupe yooyu lay jariñ c'est-à-dire que il faut que ñuy avancer wàññi politique bi tuuti di waxtaanee réew mi parce que en réalité gis nga politiciens Euh, mooy lan mooy ñun maanaam ñun ñoo war a am ay idée ay idée génn fii ñu xalaat former ay groupement former ay pas ay mouvement tappale yi nga xam ne moo am ci réew mi ay jàmm non mouvement dëgg mooy comme ñun ñi tey euh, comme yow loolu nga wax tey affaire filaawo yi ñu demoon ba former benn mouvement boo xam ne ñun euh, dañaan aar filaawo yi wala nanga boobaa ñun ñooy taxaw exemple dem jàppale benn parti politique wala commune wala yu demee noonu mais lan lañ ci jublu après parce que dañoo am benn doole potentiel boo xam ne ay nangami vote la léegi lan la ñuy def après dañuy exiger maanaam li ñun lañ bëgg mu taxaw léegi deuxième bi nga ñëw fi mu toll ci affaire drogue bi bul bul jàpp ne ñoom dañoo génn rek taxaw naan drogue non non ay ONG la àdduna bi kenn ku ne ak idéologie mais nag xam nga comme li ma naan yàlla faralul kenn ñoom dañoo am seen idéologie am seen xalaat. def ci seen i kàttan seen mën-mën def ci seen alal moom moo tax ñu ñëw ba romb seen i dëkk ñëwu naan Sénégal exemple ay légaliser drogue mais ñoom ñi ngi combattre de ñun buñ combattre tamit ñoom lañ war a def ñoom danañ ko def maanaam ñoom méngoog jamono maanaam dem ci politicien bi fexe ba créer link fexe ba créer lobbying ba nga xam ne ëllëg ñoom politicien bu ñu jàppale ëllëg boo yor réew mi dañuy exiger ñoom liñ bëgg a jàllale waaw mooy lii yii fi am yëpp suñ réew yi yeeg yooyu yëpp bu ko dégg wax ju noonu rek di ko ree parce que euh, ñoom ñu seen ñu seen maanaam seen route boo xam ne moom lañuy dem euh, légaliser drogue nag am na tubaab yi ko jot a def comme euh, ay ay ay cannabis ak yooyu mais ñëpp xam nañ ne échoué la ñëpp xam nañ ne tey yooyu yoon bu baaxul parce que doomu aadama moom dafa war a lisin surtout surtout surtout suñ dëkk yi suñ dëkk yi néew ma la mais fii bëri na yu fi am yoo xam ne dafay warta am parce que ñun ak ñeneen ñi bokkuñ. dama la jox benn exemple ji nga tux yàmba boo demee tubaab bi maanaam ñetti ñoo jël kenn ki dee tux yàmba mais ndax dana def ay effet yu garaaw seen dëkk non non mais parce que ñoom dañoo am occupation ba pare dañoo am lu ñuy def maanaam saa bu ñu xëyee seen liggéey moo leen tënk ñoom bu ñu dorogee woo samedi ak dimanche la kon ñooñu maanaam effet collectoraux yi muy andi du dégâts yi muy andi dana garaaw mais pas comme ñun suñu réew yi bu ñu ko légaliser fii bu ñu ko régalé catastrophe lay doon néew ma lay légaliser rek mais yomb gii mu yomb mu fi yomb rek moo tax ñaaw ñaawte fi bëri yi ngay gis ci dëkk bi egg mooy yàq nit ñi yëpp ci lay yegg kon foofu noonu du du question drogue bi kese yëpp noonu la demee maanaam ñoom la valable seeni réew dañuy dem ba tënk ko bëgg ñu ko chargé wu mais nag ñun bu fekkee taxawuñ maanaam méngoog jamono méngoog jamono mooy fexe ba ñun ñi ko bañ tamit méngoog ay. ay ay ay créer ay yu dëgër yoo xam ne lañuy jàppale ji politicien boobu parce que dañoo am objectif bu tax ñu koy jàppale parce que dafa am lu ñuy xeex moo tax ñu koy jàppale buñ ko deful nag ñoom dañ koy def waaw bu boobaa ñoom dañuy créer ay lobbying yoo xam ne ñun bu boobaa day am yu dugg suñu réew yoo xam ne duñ ci mën dara.